santé bu baax a baax ñëpp ñoo xam daal bàyyi nañu seen ité ñu ñëw fekkee bés bi di gërëm bu baax baax sama jigéen muy euh, madame la directrice générale de ce service de cette direction euh, muy vraiment jigéen bu mat góor depuis président nommé ma ci fonction bi mu jël kon sama contact def lépp pour que bés bi tey mu mel lu mel kon loolu déjà wane na kanam boo xam te daal euh, kanam bu baax la doxalin bu baax lay doon te soobe yàlla ñu ngi ñaan membre conseil d'administration bi yëpp ñëw ànd ak moom pour que loo xam daal président de la république son excellence loolu la ñu sas euh, euh, ñu ñaan sénégalais yi ak membre conseil d'administration ànd ak moom ci loolu pour que ñu mën a euh, atteindre objectif yooyu ci président de la république fas yéene que service bi demee noonu. kuréel bi ñu tagg tey mu ngi mooy service géologique national service géologique national beaucoup dégué moy euh, ci dëkk yi ñëpp dañ ko am ñu bari dañ ko am d'ailleurs Sénégal mom moy président organisation service géologique yëpp yi nekk ci Afrique ba paré signé nañu ben convention si at euh, Union africaine pour nekk bras technique Union africaine et donc service géologique mom beaucoup dégué moy zone bi nga fu nga xamante jumtuwaay bu nga xamantene état bi da koy mettre en place nga xamné information bu mu soxla ci ndox bi ci suuf si même en de pétrole énergie faut fofu lañ koy amé. service géologique yoy nak dañuy liggéey en collaboration avec société sociétés minières, les universités yi structures qui existent xamné parce que war nañu réaliser euh, des prestations de services, mo xam analyse la technique ou autre pour l'État ou pour le privé national loolu moy jeexantal bi lan lay doon lu muy jëriñ. waaw jeexantal bi moy nga ñu dem ba nga xamantene état bi dina xam exactement lan la am ci sous-solam wala ci sol bi nga xamne bu démé di négocier ak société minière yi da koy day tax mom mu xam fu muy tek tankam parce que dem rek négocier noonu luñ ñu la proposé nga né waw alors que war nga mëna défal sa bop ay études xam lan nga am mën ko négocier donc loolu mom moy jeexantal bi am na ah ci sama gis-gis am na njëriñ te yaakaar naa ne ci gis-gisu autorité yi ko aussi parce que ni ministre waxee sànq depuis des années chaque yi am na ay tentatives yu bëri pour créer ko mais mu ngi soog di sotti ñu naan rek lu jot yomb